السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بوكي سفو لا la رواتنا نيغا حمنتنا نيوي xamante نيون فجر ànd تجوتايو بديو خيتوي ñu ngi amati mbégte di janoo ak yéen di leen ñaanal li ñuy ñaanal sunu bopp di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal ñu ixlaas defal ñu qabul ñu ànd ak yéen niñ koy baaxoo di ko def fajar ju nekk taxaw ci buntu kër kilifay diine yi ñaanal leen borom bi subhanahu wa taala sàkku ci ñoom ñaan ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na yàlla sàmm leen wott leen defal leen xifd defal leen riaya li ñu yëngatu ci diine borom bi subhanahu wa taala yàlla na leen ko yàlla subhanahu wa taala nangul noonee tamit la ñuy ziyaar kilifa yi réew mi ñaanal leen borom bi subhanahu wa taala yàlla na yàlla kattanal leen dëgëral leen sàmm leen aar leen boole leen ak bitaana saaliha goo xamante ne tuinuhum ala alxaqi ni ki noonu la ñuy ziyaare kilifay kër gi la RTS yal na leen yàlla subhaanahu wa taala sàmm wattu leen dëgëral leen li ñu nidar pour liggéeyal ko kër gi ngir askanum Sénégal yal na leen ci yàlla subhaanahu wa defal ndam noonee la ziyaar képp koo xamante ne yaa agent ci biir kër gi yal na yàlla subhaanahu wa taala sàmm la wattu la foo munti nekk service boo munti nekk wala département boo munti nekk wala liggéey boo mun a téye ci biir kër gi yal na la ci yàlla subhaanahu wa taala defal ndam yal na yàlla sàmm la sàmmal la say njaboot barkel la sak am am none lañuy ziar ñi nga xamante ne ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi yàlla na leen yàlla subhanahu wa taala fëgg seeni bopp delloo leen seen aafiya delloo leen ci njaboot gi yàlla subhanahu wa taala may leen li nga xamante ne moom mooy wérgu mat sëkk woo xamante ne du ànd ak benn jàngoro noonee la ñuy ziar ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci bërëbuk yarukaay yi ñu tënk seen dem ak dikk yàlla na leen yàlla xettali yàlla génne leen ci seen jafe-jafe ak tolof-tolof yi ñu nekk saa su nekk laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin yàlla na leen ko yàlla subhanahu wa taala defal génne leen ci jafe-jafe yi ak xat-xat yi noonee la ñuy ziyaar sunu wayjur yi sunu yaay yi sunu papa yi toog yore seeni kurus ci li nga xamante ne moom mooy jotaay di tudd borom bi subhaanahu wa taala yal na leen yàlla nangul ñu ñuy sàkku ci yéen tamit bu leen ñu fàtte seeni ñaan ñi xëy di war a dabu ji seeni wërsëg yal na leen yàlla subhaanahu wa taala barkelal yàlla defal leen jàmm ñu xëy dellu si waat ak wërsëg goo xamante ne gu barke la mbokk yi bi mujj ñu ngi doon waxtaane ci jafe-jafe goo xamante ne jullit ñi amoon nañ ko ci biir Médine ci manque ndox mu jafe woon lool benn yahud moo moomoon benn teen boo xamante ne teen ba dafa neex macha allah ndox mu neex lay joxe teen bi mu ngi tuddoon ruuma yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu tiis diisoon lool ci moom muy xool jullit ñi ñuy dund jafe-jafe am ndox am koo xamante ne moom rek moo am ndox di ko gérer mais di ko seeral li nga xamante ne moom mooy njëkk mi ba nga xam ne ku néew doole moom xalaatul naan ci ndox bu neex yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ñaax boroom alal yi ñi nga xamante ne ñoo am alal biir Médine mu wax benn kàddu ana kan mooy soulager jullit ñi ci jënd teen diw yàlla fay ko li nga xamante ne moom mooy aljana naka la kàddu yooyu toqee ci noppi Ousmane Ousmane profito jiitu dem ci ki nga xamante ne moom mooy waaja moomoon teen ba mu nekkoon juif boobu di zakal yahudi ba Ousmane ñëwee ci moom mu gaaral ko ne ko dama bëgg nga jaay ma li nga xamante ne moom mooy teen bi waa ji daa di bañ ne ko du ko jaay teen bi Ousmane ne kon jaay ma li nga xamante ne moom mooy xaaju teen bi bi maana bis jaay ma ko jour yow yaay jaay jour bi ci des man maa man maa moom waa ji d'accord daa di koy jaayee lu cher jaayee ko li nga xamante ne mooy ithna achara alf dirham douze mille dirham nga xamante ne ci jamono yooyu pièce pièce li nga xamante ne moom mooy argent ba muy tolloog li nga xamante ne moom mooy douze mille pièces la ko jaayee Ousmane daadi koy jënd mu daa partem limu moom Ousmane daadi koy may jullit ñi Ousmane may ko li nga xamante ne moom mooy jullit ñi bi maanaam jour bi nga xamante ne ci wàllug Ousmane la jullit ñi dañuy ñëw root gratuitement du ñu fay dara comme que léegi waa ji moom rek moo fi nekkoon di jaay ndox te léegi jaay na benn parti ndox mi Ousmane donc du bis moom mooy jaay bis bi si des Ousmane mooy jaay comme que moom xaalis moo ko yitteel mu continuer di jaay Ousmane li ko yitteel mooy la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaaraloon kuy jënd teen bi yàlla fay la li nga xamante ne moom mooy aljana moo tax bu bisu Ousmane jo jotee si la julit ñi di dem profito root lu ñuy naane bis boobu ak lu ñuy naanee la lendemain donc waa bu bisam jotee du gis kenn ku ñëw jënd si parce que nit ñi jot nañoo ci bis bi leen may wàllam root nañ ba denc waa ji bi mu xoolee gis ne ah fi mu toll nii xaalis duggatee dugg duggatul si la ñëw mu gaaral Ousmane ibnu Affan radiyallahu anhu ne ko kaay ma jaay la li nga xamante ni moom mooy teen bi yëpp ci la jaayee Ousmane li nga xamante ne moom mooy li des ci teen bi mu jaayee ko huit mille dirham huit mille dirham donc en total su fekkente ne daf ko ko njëkk a jaayee douze mille jaayewaat ko li des huit mille donc en total dafay nekk vingt mille dirham la Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu jëndee woon li nga xamante ne moom mooy teen bi mu nekk xaalis boo xamante ne bu bëree bëree bëri la. xaalis boo xamante ne bu bëree bëri la ma la ko Ousmane jëndee moo ko jar ngir ne aljana la ko jëndee ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne képp koo xamante ne moo jënd biiru ruuma yàlla subhaanahu wa taala da koy fay li nga xam ne moom mooy aljana ci noonu ci la Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu solutionné li nga xamante ne moom mooy ñàkkuk ndox gu neex ca Médine jullit ñi moom mu jël teen ba jox ko jullit ñi ñu di ci root saabu leen neex heure bu leen neex te dara du leen ci fekk duñ ca fay li nga xamante ne moom mooy dërëm ngir ne Ousmane da ko jëndee ak aljanay borom bi subhanahu wa taala ñu jàpp ne mbaaxuk Ousmane foofu la yam déedéet déglul beneen taxawaay goo xamante ne toujours da ngay gën a yéemu taxawaay ba moo di ne keroog bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàkkaam ja xat na pour ñi nga xamante ne ñoo fay julli si يرنتي بي صلى الله عليه وسلم دفتح موحني من يوسع لنا مسجدنا هذا وله بيت في الجنه انا كان مو ني ياتال سونو جاك جي يالا فاي كو ليغا خامتيني موم موي الجنه با عثمان ديغي لولو لامو ديف موي ديم جند suuf sa nga xamantene ne moo dendoon ak jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu jëndee ko ci ñaar fukki junni dërëm dirham mooy ishruna alf vingt mille dirham mu jëndee ko li nga xamantene ne moom mooy suuf soosu toftale ko dolli ko ajouté ko ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax foofu la yam déedéet am na beneen taxawaay boo ibn Affan radiyallahu anhu taxawe na ko ngir ne keroog بينتبي صلى الله عليه وسلم واجلي بن خري غير بو يونتبي صلى الله عليه وسلم ورونا بارتيسيبي مو نيكون جامي جامونو جافي جافي باسكو بوبو يونتبي صلى الله عليه وسلم دا فا دون واج بور ген تاسي اك رومين تا خام نين جامونو جوجو رومي ньо نيكون بويسانس بي گنا ام دوله سي كاو سوف tey jii nii boo ko doon xool dañuy wax ne na Union soviétique tolloon ca jamono wala Amérique tollu ko ci jamono noonu la Rome Rome yi tolloon ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallama war a jàmmarloo ak ñoom war a génn ci xare tase ak ñoom mu nekkoon jamono yi jafe-jafe yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñaaxaat tamit boroom alal yi daa di lancé waat wax ne man yujahizu jaysal usrati walahul al janna kan mooy préparé armée bi nga xamantene moo war a dem xare jano ak romain yi yàlla subhanahu wa taala fay ko li nga xamantene ne moom mooy aljana Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu daa di génnee li nga xamantene moom mooy alalam ngir ne ci xare boobu ci la ku nekk ci ñoom génnee li nga xamante ne moom mooy moom mooy la mu am ngir na ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee loolu Omar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu génn wàllu alalam la indi abu Aboubacar indi li nga xamante ne moom mooy alalam yëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko loo bàyyeel sa njaboot mu ne bàyyee naa leen yàlla ak yonentam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jug tenir benn discours ci kanamu nit ñi daa di commencé di wax ngir li nga xamantene mom moy xex xare bi ni non lañ koy wajale ci jamono joju ci la Ousmane indi téméri gilem ci la Ousmane indi li nga xamantene mom moy téméri gilem andak li nga xamantene mom moy la koy waajal waajtaayug xareem bi Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu inde lolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Ousmane dafa ñëw mu ne ko ya rasulallah alayya mi'atun ukhra وفي المرة الثالثة جاء وقال يا رسول الله علي مئة ثالثة ثم جاء للمرة الرابعة ووضع في حجره رسول في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف دينار بعثمان مؤند تيميري جليم delluwaat indiwaat téeméeri gileem delluwaat indiwaat téeméeri gileem yaa ngi ci ñaata ci ñetti téeméeri gileem delluwaat ci quatrième fois bi mu indi alf dinar mille pièces d'or mu indi ko juugal ko jóoral ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bis boobee la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne maa darra Ousmane maa abada baada al abada Ousmane lu mu munti defati. yàlla subhanahu wa taala du ko jàppee daa di wax ne allahumma inni amsaytu radiyan an uthmana farda anhu yow yàlla ngoonuk tey jii de gontu naa gërëm naa usmaan yow yàlla nanga ko gërëm ndax mbaaxu usmaan fii la yam déedéet sunu biddeewu am na yeneeni mbaax yoo xamante ni moom la dund xoolal rek ni nga xamante ni noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séddale aljana ci ay occasion yu bari yoo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay ne kuy def nangam yàlla fay ko aljana ka defoon doonul woon kenn ku dul Ousmane Ibn Affan yeneen i taxawaay mu ngi ñëw ak sunu biddeew Ousmane Ibn Affan ci yeneen i jotaay dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi way leen di continuer ak programme RTS yeneen i programme ñu ngi ñëw ci ginnaaw ñu jox leen daje ci beneen jotaay bu neexee yàlla wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu